waaw تمطر كل جنات وعيون وسرور لو جانغا وما وما خالد da ngay nafa parce que photo yi la ñu firaw na liggéey bi daawal mu xamante nag photo yi yàlla la da ngay mas lonk ki ci toog di dee photo bi du ràpp photo bi du ràpp ki ci toog di dee kooku di photo yi dinañu sant foofu ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne dugal nañu ci kër gi ak seen yi sax amuñu woon fiti dugg waaye mu ne duxulaa bi salaamin aminina mais bi ñu duggee ku ne dafa taxaw ci ëtt dina installé leen nag foofu nag la ñuy sant ne alhamdulilahi alladi sadaqana waxda wa awrasna baadinatabu fi min jaati in insaa yont yàlla éché yont yàlla daawuda yàlla nañ ko juróomi yëf man la koy dénk soo ko respecté rek respecté nga téere bi yëpp soo ci manqué benn respecté woo téere bi mu ne ko ban ak ban ak ban juróom mu ne ko fekk déggule nga folleeku na man yàlla def nañ ma coup d'état nga toppatoo ko ba mu sax keneen toog ma jóg fi fekk déggule loolu sa seentuur ak toppa yàlla bu ko tekki wax bu rabbka tayatika yàq seen déggul na folleeku na sa seentur a topp yàlla bu ko tekki mukk boo ko tekkee juum benn ñaareel bi fekk binduma la leetar ne li nga defoon yëpp baal naa la ko te loo defate baal naa la ko fekk recevoir loolu leetar boobu bul ayibale ci ku def bàkkaar ñaataango fekk déggul na sama màng si nii jeex na te naa ne maa indakum yanfadu wa maa indallaahi wa maa indallaahi man waxuma loolu de xayrun wa abqaa laa wax bu dee baax rek te tolloog li nit ñi yemit baaxul su dee baax te nit ñi nit ñi yor baaxul xayrun lay doon ba noppi wa abqaa soo déglu ne soo màngi si ngi jeex na ba maa ngaa jéggi jéggaani Amérique mbaa may lebi ci portugais ya lu ma doxale fekk loolu amul bu wërsëg doon si yitte foo ne dinaa la fa fekk moom ne bi ne bu nit ñi tëddoon banque seen loxo nelaw tëj seen buntit wërsëg fekk leen fa ñu ne ko lu tax mu ne ku mës a fekk dee ñu ne kenn mu ne ku jot a ñëwul mës ngaa gis ku jot fekki dee mës ngaa gis ku rotata fekk dee fekk si wu la su ngeen toogoon wërsëg bi di leen fekk si ni leen dee di fekk fekk déggu ne sox mang si nii jeex na wërsëg bu mu doon sa yitte foo toog ma fekk la fa gisee rek dama wax la benn feeñ door a jàll waa géej xam nga ni ñuy dundi géej géej ay borom këram yu am jabar waaw di jur ay doom moo tax ba tey ngay mucca bu fekkoon ñu jëkk ñaa fi ne rek ba tey géej géej géej gént waaw waa géej ay masam amu fa ministère amu fa du ñu def commerce du ñu béy te di dund dooma laaj na ñuy dund ku ëpp doole sa moroom añe looloo xew ci géej ku ëpp doole sa moroom añe su rente su ku ëpp doole sa moroom reer waaw dëkk boo xam ne ku ëpp doole sa moroom lekk ku fa gën a néew doole fu muy lekki xarañeeg yàlla rek laa lay won dëkk boo xam ne ku ëpp doole sa moroom reere ko ku gën a néew doole te ëpp kenn doole fu muy reere maa ngi dee léegi Maodo doon ne ko jox naa fi jox naa fi jox naa fi maa de sekk genn ca benn cax nu ma ko waxal ca rajo Dakar mu ne ma cax bi lan la ma ne ko dëkk boo xam ne kenn amul droit réere sa kër ku ci ne kër jàmbur ngay réere te kenn defan bi ban dëkk la ak ñu ko dëkkee dëkk boo xam ne kenn amul droit reer sa kër kër jàmbur ngay reere te kenn du duñu mën a dëkk ba fan la ak ñan a ko dëkke maa da maa da cax bàngo dëkk boo xam ne ku ëpp doole sa morom reere ñu fa gën a déew doole fu ñuy reere Saliou Dia xam nga ne yàlla def ci xereñam dafa fexe ba ki gën a ëpp doole ci dëkk booba moo yor reeri ki gën a néew doole c'est que lii rek ki ëpp doole sa moroom reer ki ëpp doole moroomam reer ko ki ëpp doole moroomam reer ko ki ëpp doole moroomam reer ko ba ñu àgg ci ki mujj ëppul kenn doole te nar a reer te ma min daaba fi ardi ilaa la la risqa wa yalu mustaqraha wa mustawdaha kullun fi kitabin waaw waa ji néew doole ji fu muy reere yàlla ne waa ji néew doole jaa ngi reere ci ki fi ëpp doole ci géej gi te ko ëpp doole sa moroom reer na muy amee ngand moom bu xiifee tuñum suuf mi lay dóor pepp xëcc nokk gi coran coran bi ñëw indi jën yu mag ak yu ndaw yépp ba mu yëg ni koll bi fees na mu matt ñaari yoon sàqar gi nokki ndox ma jaar ca pax ca paxi bakkan ya génn jën ya des ci bu dóoree nag tuñum suuf mi nokki ba coran bi ñëw jën yu dugg jën yu tuuti yi dañuy duggaale yu néew doole yi ëpp kenn doole buy sàqar mi nag seen tuutaay ay tax seen tuutaay mooy tax du leen mën a sàqar mi waale ñu tag ci diggante ñaari bët yi bu reggee nag bu doon nit la mu war a sokkorootu mu ci la jën yi gaawtu añ gaaw gaaw gaaw gaaw balaa nokk pour mu génn fekk ñu noppi mu noppi ñu génn ak dem seen daabatin fi ardi la la raas billahi ñu ngay sant yàlla mi nu dugal si kër gi ñeenteeli juróomeeli cant ngaa goog juróom benneel bi mooy bu rappaa bi ñëwee àjjana xam nga boo fay oo palaat looy wax soo xiifee ba bëgg a oo ci si ñuy ah fa ngeen dégg lekk fa ngeen jéem a dégg làkku àjjana mbaa ngeen dégg parce que foog foog doo tàccu nag nii doo wax booy doo wax yaa gaxwa ji waaw maa koy wax loolu yaa gaxwa doo ko wax daaweehum fiha soo xisee ci àjjana lay wax pour ñoom lekk da nga naan subhanaka allahumma palaat yi teew daaweehum fiha subhanaka subhanaka allahumma boisson ñëw subhanaka allahumma loolu ñuy wax fu lii ñëw loolu na waa àjjana yi oowante ci lekk xam nga li ñu nuyu ni ngeen di nuyu salaamun aleykum bu ñu rëpp bu ñu lekkee bay dem nag alhamdulilah wa aqira daxwaahum alhamdulilah wa kay kookoy juróom-ñaale yi di cant yi ñu war a sant bu ñu tàbbee àjjana waaw waaye singaar yi ci seen barke maam yu baax yi ak kilifa yi diine yu baax yi sa tante yi sa jigéen yi sa jabar yi sa rakk yi ak gori jullit yi ak seeni jëkkër juróom benn cant yooyu gémmiñ ya koy wax yàlla na ci suñu gémmiñ yi bokk door ma tise di la wane na wala affaire bi baax na rafet na rasulullah ku ci yëngu lu mu néew néew néew sa yaram arab nas amul benn werante ak façon yi nit gis nga ma laa biira leen sax dooru dugg ci jàng yi sëñ Babacar nañ nga may permettre jaamu yàlla def ci am yu am condition boo ko rampalewul boo jaamoo dara am na ci benn benn bu amul condition noo ko defee yàlla jël yooyu nag day jéem a dafa mat a xam da ko jàng yii am déet am matu ko bàyyi laa jàpp si mu baax ma ci jaamal nee na ñetti jaamu yàlla bi seen condition diis na diis goo xam ne ñaar bi dugg naa ci waaye maa ngi koy réccu benn bi nag dugguma ci tudduma ci dugg mukk ñu ne ko ban ak ban mun a jël wird su ma yëgoon du ma ko def sart yi ci nekk jël wird su ma yëgoon du ma ko def de sart yi ci nekk diis gi mu diis wala bu ma yëgoon bàyyi yàlla sama bopp waaye xam naa ci dugg nag xanaa ma jéem laaj benn bi aji màkk mu ne dem naa de waaye yaakaar naa ne dama yàq sama xaalis rek waaye sart yi ak màkk wax diis gi mu diis su ma yëgoon koppar yooyu dama koy sarxe du ma ci demante ñetteel bi nag mooy juma du ma tabax juma mukk du ma dëkk mukk dëkk bu ñu tabax juma fu ma dëkkit bu ñu tabaxee juma ma toxu parce que condition yi ay diis mais bu fekkee nag tam fu sa yoon yow sa yoon jasakallahu xeer am na juróomi jaamu yàlla yu amul condition noo ko defee yàlla nangu ko da nga defee ne julli da ngay tëb rek kabar amul taarak xabas nga ñëw ne def naa ko ñu ne des na xabas nga dem ñëw ñu ne la des na bëdd na nga dem ñëw ñu ne sawbu nga dem ñëw ñu ne makkaan nga dem ñëw ñu ne teewlu xuson xudóor ak udóor c'est beaucoup waaw mu rempli ko rempli ko dafay jafe xam nga wala si na yottuuna ma asaw wa xuluubahum wajilatun annahum ila rabbihim raaji'uun am na gor yoo xam ne ñu ngi rempli service bi ni mu waree te bu ñu àggalee da cim tiit ñu ne xanaa loolu ñuy jaxase càncaay ak lu baax mu ne déedéet lu baax rek la ñuy def ñu ne lu tax ñu àggal da cim tiit mooy tiita ndax duñ ko nangoom duñ ko nangu sëriñ bi wax na fi la am solo am na góor gu baax gu ñëw usayra yàlla boole ko ci ëllu tamkin wa kasfi wa tamkin benn at mu dem taxaw arafa ca aj ga tëdd fan bu jëkk ci muna gént gis ñaari jëmm yu weex mun leen tudde malaaka waaye yu weex la ñu jóge asamaan ca péru benn benn benn morom bi xam nga ñaata taxaw ren arafa mu ne ko xamu ko yàlla ko xam mu ne ko temps fi taxaw ren ci araf tant de millions tant de mille tant de cent tant de chiffres xam nga ñaata la ci yàlla nangu mu ne de mu ne ko nanguwul kenn ren ak gépp ren dañ leen refoulé ñu ne tiit ñu dem sànni jembara fanaan deuxième guddi ma gisaat ko ma gisaat ko même xam nga ñaata taxaw ren araf waxoon nga ma ko mu ne la xaw ma ko waxoon naa la ko danga gaaw fàtte tàng xam nga ñaata ci yàlla nangu déedéet nangu lu ci kenn jàng badalaka laaw xayran badalaka laaw xayran wa xayran wa xayran si mbay sa taalibe bu baax boobu mooy sa goro bi moo may saraka ji doomam abib abib saako dafa bëgg taalibe waaye ku jigéen ku dem ba nekk magistrat dem ba ñu dénk la xaalis ci Sénégal li ci ëpp nga di ko signé suñ la mayee ko duggul l'école sa baay sa baay dafa gëm yàlla Habib toogul ci bañu l'école soxnaam non kilifa gu réy la xam nga dañ koy door a may xam nga taalibe dafa féex bàyyam dañ ko af xale bi bàyyam dañ dañ ko affecté dañ ko affecté Tëngéej mu war a yor impôt Tëngéej yëpp ak banlieue bi te tubaab rek fa mës di nekk waxuma nag ku góor waxuma ku ku jigéen mais tubaab rek fa mës a nekk léegi ñu am nag réservoir bu jigéen bu dib jànk sëy bu papaam ne ko bu ñu la affecté tëngëj kenn laa fa am alaaji bu mooy sa baay seeti ko bu ma boo installé nag dinaa la yóbbu xale bi installé xaar papaam papaam am gàllankoor xam nga nit ku xas jàng rek mu ne ma yóbbu sama bopp indi boppam nuyoo pap galo jaañ mooy sama baay galo ñu ngi ànd ëpp na léegi ñaar fanweeri at te ñu ngi ànd ci yàlla rek kaamil bi may firi ci ci ci ci tëddin ma ne ko yow doom sama doom nga ay jigéen ñi ñëw may leen xool leen ki kat fi lañ ko affecté jombul dina soxla lu mel ni sànqal wala muy soxla gerte gu ñu dër wala yooyu parce que olof la suñ ko joxee place tubaab it olof la te fa mu nekk matériel boobu am fa ngeen di ko fàttaliku mu dem ma door a gis ak bàyyam na ko ndaw si di indi na boppam xam nga nag xale yi xam na ma def ba gisante ak Abib Sakho xam nga bi dañ ko fekk jóg waaw xaw kon dañu toog rek ne Abib la ñuy may ndaw si may nekk nag sama féex gi bés soxla Abib xëy leen ndekeen alkaati yi taxaw ci bunt ba comme ci trésor le musée alkaati yi taxaw ma gaaw ñëw bëgg a romb alkaati mu ne góor gi koy seet ma ne ko kii mun a jógaguñu ah bi duñu ubbi bi heure ma ne aha bàllee naax dagg jot waaye gëm yàlla dafa jafe dafa jafeñ tor yàlla na ko yàlla defal sëñ bi waxtaan na ci lu bari yàlla na ko yàlla defal defal ko jullit yëpp di jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñaata taxaw ren arafa xaw ma ko waxoon naa la ko biig da nga gaaw a fàtte ñaata la ci yàlla nangul xaw ma ko nanguluñu kenn aj gi tout yàlla daf ko refoulé rek seen mujjug ayaami muuna gaa yi fee ñëwaat ko ne ko ñaataati xaw ren arafat mu ne ko laaj nga ma ko ñaari yoon mu ne ko wax naa la ko ñaari yoon xam nga ñaata la ci yàlla nangul mu ne ko mu ne ko noonu naa la yàlla nangulul kenn waaye biig di fajar gi xar yàlla nangu na aj gi yépp yépp yépp ngir barke diw te ko mu tudd aj siwul ma ma ma àggali xisa bi jox la may na ma ma àggali xisa bi jox ko بجيت خيرا وكفيت سرا ووقيت ضرا ولا لقيت ما بقيت درا ما خام دما جانغ وخاتب بحاتي وجايب بصوفة وبحاجل منك بآتي borom ma xaama da doon dénk doom ju ne ko sa wax lu mu bari bari na doon indi lu sa tontu bari bari na doon dinaa la indi dinaa la lu jëm ëllëg nag boobu boo di fukki dërëm jënd ko dërëm ak teew teew teew allah ji maa gën a xisa bi nga woy maa ngi bëgg a waxtaan ak yéen tey fu am importance ci xel ak zat bi lool fépp set i fépp yem sax waaye fii góor gi dafa feeñal xam-xam boo xam ne dafa mel ni ko wal noonu ko wala wal ba mokkal nag di kandak billaahi waaw fi ñu war a jàng tey waaw ma ne diw ma la toog Sénégal aj siwul nu xaw a dee suñuy armal jaabante salaat marwa sànni ajarul aswadi taxaw fële ca ca ca ca arafaat ñu di nangul diw ci Sénégal te ñu te ñëwul baax na ba ma dem mu ñibbisi ñu ñëw di ko sargal diw ñëw bu mbooloo mi paree rek nañ sarax leen ñu ñaan di jóg bu waaj ji jóg mu ne ko dama la soxla ba ñu wéet mu ne ko kaay julli day laa biir moroom ma ban xeetu jaamu yàlla nga def sunu gannaaw mu ne ko li ñëppay def julli jàpp sangu jàng lu mu mën ci alxuraan salaatu ala nabi man day passé ma fi mën a ko déedéet am na loo def soo ma laa biirewul du ma la wax mukk li xew xalaatal sa fekk waa ji nag teg kam yàgg na ko ah li ma fàttali ko di kër gi sës ci man toog naa fi benn takkusaan xeetu ko yàpp bi ma xeeñ jóge ci kër gi gub bu ñor fekk keroog ama ndawal ma fabas lëf ci cere wiiri ne borom kër gi ñaanuma ndawal waaye dama bëggoon nga tiim ma may mas neex ma si war ma si ma ci xale yi mu ree na ko wax nga dëgg de yàpp bi de fii la ñore waaye araam na ci yow mu ne ko araam ci man dagan ci yow ngay jullit may jullit mu ne ko waaw xam nga tax mu aram ci yow te dagan ci man mu ne mu ne ko gis lu xale yu ndaw yi seen bàyyi dafa dee bàyyiwuñ maag dara te dama def lu ñaaw mukk ñaari fan yi lekk ñu tey may doxantu fekk xar mu medd fële ci laa baxal ñu lekk ko yoon may na ma ko te mayu la ko yow nee na ba ma dellu si fekk may préparé yoonu màkk laa ne kii daal ak xiifam bii du ma yóbbu ko prix màkk ca laa dellu si fëgg ko mu ubbi ma ma jox ko ko mu ne ko barke boobu ci la ñu nangulee ujaay yi ca màkk yépp ren budul moom moom yow doo nangu mu di lii sëriñ bi digle ci ñam yi mu wax ne nañ ko def jox ko jox ko miskin yi ñu ñu lekk ko sama benn xisi bi maa ngi koy dog alaaji mii dafa bëgg a barke des na yaram wee tàng ñu laal bu baax ñu yeewu ñu dem ci bàyyi alaaji Malick ci xilaas bi waaye daal ku fi indi tiis yàlla na fi des. waaw.
la ngay jox alaaji Malick. dafa la si alaaji Malick dama lay bëgg a nett li benn nett ba daf ma ko wax ma xam ni ca la bokk. nee na dafa am feebar sonn bu metti ci réew mi bala ngay dugg saxaar il faut nga am difficulté si laaj Maalik bind ko ci Tiwaawan ni ko sëñ Yusufa na nga aw ci àll bi fekk si ma Ndar nee na mu jógee Tiwaawan dem kër Alaaji Sele Xulle fii ci Mbaraglu sama papa daana wax ni xadiisu yent yàlla Muhammad bi mu wax ni ku sunnaan lu baax ñeel na la tuyaabay sos ga ak participation ku ko defati ba ba addinay tukki mu ni Maodo alaaji Sele Xulle bàyyi al so Anta Xulle bii dëkkoon Dakar moo njëkk a jox Sidil Xaaj Maalik nagu gàmmu ci at mu ni keroog ba mu demee ci kër alaaji Sele Xulle moomu mu ni ko sëñ Yusufa day Maodo dafa waxoon ni lu la nit di joxati ci tund bii bu la gisee na ko ko jox na la ko jox dama ko fee jox nag aw nag mu ni ko kon de ndar laa jëm dama koy sombe soppee mu ni ko nag nag wi fay nañ ma ci ñaar fukki dërëm waaye sama mbokk mi daf ko bëgg ba nee na su Maodo yónnee see te di ko soppi na ma àttan na ci ñaar fukki dërëm ak ñaar sama papa nee na ma fas ko ci sama lafu kaala sàmba seen bi dox di dox ba am àgg pom lebar mu guddi ma fanaan fajar nee na mu fekk si laaj Malick ci loodo mu jógee jàkka ja toog nee na ma dikk nuyu ko dindi sama kaala sàmba seen bi dindi ñaar fukki dërëm ak ñaar ni ko lii day alaaji sela xulle moo la joxu nag mënuma koo indi ma soppati ko mu ni ko ah lu la ta bàyyi la yàlla doom kër gi de tey jii lu ma joxe amu ci sama doomi naaru marocain bii bi ma jógee jàkka ja démb daf ma nuyu ba noppi dellu ci bitigam ñëw indil ma fi lu am solo lu am solo démb ba tey nit ñi jaaxlewuma ci lu ma faje seeni aajo waaye baaxub sarxeel ma ko baatub sarxeel ma ko kaaf googule moo tax mënuma cee jëfandi sar xel ma ko moo tax mënuma cee jëfandiku sama papa nee na naar bi ku déggoon arab la ci moom lay dal ba ma Maodo yeew yeewi nee na ma dikk wax ko ko mu ni ma ëllëg ak si biir doom looy joxati Maodo bu ko ko jox ko noonu mu ni ko sëñ Yusufa man Maodo dafa jóge rek jàkka ji jamaali yëfi xëcc ma wóor na ma ni baati na moo ma nëbb sama caabi coffre-fort ma wër ko wër gisuma ko ma dikk boole li ci samay poos ak mbooleem li ci sama tirwaan fab jox ko waaye bu ma gisoon caabi ji lépp laa ko jox sëñ laaj ma sama papa nee na mu ni ko demal fanaani sa kër ma nijaay maxtaar baabu ca njëkk moo njëkk a wone Seex al Xaaj Malik ci ci ci tund njaaxu Seex al Xaaj Omar a ko jox salaatul fatiha mu dem yeesu ci Maodo Maodo trente-trois cent ci la aj Màkka ba muy xam kooku Maodo ajagul daf daan dem di ko fekk ñu ni say njaxi ba barkeem bu bari bi muy fekki tukkulóor si mu ne ah ku ma yéene jàmm danaa la ko woon sama tukkulóor bi mbiram dana ma sa daj penkook soow nee na ñaar fukki dërëm yooyu daf ko jënde daf ko jënde marchandise marchandise jox ko ko ni ko demal si kan ma nijaay maxtaar baabu dina la fekk nee na xaw ma lu ko indi damaa yeew rek sama nijaay ni ma marchandise mi ñëw na nee na benn ràbb buy ji jënd ay gëléem di ko jaay si ca la sëf marchandise ma ba ñëw Tiwaawan jëm ak moom làmbaay li ma xamal mille neuf cent nag ah li ma xamal mille neuf cent nag mu ni ma fekk naa keroog sa nijaay xaaji Mansour radiyallahu anhu ci néeg ma jënd ca benn baaru saabu jox ko sama am sa feetu hadiya soo ko dem làmbaay nga xam ne xaasi Maalik ihdiloo huwa aqrabu li taqwa Maodo ko maanu
kenn du moom أنا صنامي أنا صنامي وفاة الجد وفاة الجد أنا صنام وفاة الجد سألني وأتني وأنشر وأنشر صنامي فاة الجد أنا Yeah.
من كفى أسدار أفتان دون مطلدان تامر أدلتان
أما الصنامي وفاة الجد سلام يا أخي نال وفاة الجد أما الصنام على قوله ساعنني gis nga góor gi de ama samaani wafaatul jaddi waxul soo anami te wafaatu dafa naa fayil la daf ko ci naatal li tax mu nasab ko nag indi kilif taxawal ko lépp lépp ama samaani wafaatul jaddi waxul soo anami ne saa anami ama samaani wafaatu xaatimin sil kërami ama samaani wafaatu annu surbaani sil kërami kenn du ma këram benn baat bu riis la ci arab danañ ko employé ci kenn ku góor di ko employé ci ñaar ñu góor di ko employé ci ñett ñu góor ba téeméer dañ ko employé kenn ku jigéen di ko employé ñaar ñu jigéen di ko employé mbooloom jigéen moom rek man loolu kërami yëpp nag Maodo def na ko ci xilaafaat bi ngir yeete waxoo ko